gaawal nga abonné ci sans info point di groupe bi joxe information huit heures ba deux matin lépp li information cent pour cent info moo la koy jox chaque jour inscription bi mille francs la chaque fin du mois nga joxe mille francs info point net di la jox information yu amul fenn dañuy woo 77 186 72 50 77 186 72 50 te info point net mooy joxe information yii yi ngeen di déglu. yéen a kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndéwénalu coronavirus gi ci tabaski gi mi ngi soog a yegsi la Sénégal yi nañu yegsi na ak doole jamono ji nga xam ne ñu bari ci askan yu bàyyeekoo nañ Dakar wala ñu bàyyeekoo ci diwaan ñu nekkoon dem tabaski ji ba ñu ñibbisee li mu jur moo di cas coronavirus dafa gën a yokk rawatina lii di cas communautaire yi mu di ñi amee wopp ji te xamuñu ana fan la leen toppee ne ci 48 heures wàññi nañu ci Sénégal lu jege ñaari téeméeri ak fukki dese ak ñeent li xew ci dëkk bi ci coronavirus bi journal La Tribune jàppe koy dégâts yuy tukkee ci tabaski communautaire libération xibaar ñu ne ci 48 heures yi mujj coronavirus bi fi ndax mbas mi ñaari téeméer ñett fukk ak juróom-ñetti cas yeneen yu yees ci cas yooyee téeméeri ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ay cas communautaire lañu cas communautaire yooyee ci coronavirus bi Le Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne ñoo ngi ne jasat ci réew mi bëccëgu dimanche démb gi rek lu ëpp téeméeri cas am na fi téeméeri cas communautaire ak fukk ñett ñoom la ñu gis ci lu mat ci fukki région journal bi tuddee ko journée sans ba tegal ñu ci ne jàngoroy coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi bu ñu ci jëlite matuwaay dakal ko musiba mbàbb kumba lay doon suur soi ne ko matuwaay yi kay gaañaa nga ca jëli matuwaay moo waral ñu tere ay levée du corps ci réew mi ba jëmmi jamono li quotidien mel ne ko ñu kon nag kilifa yi nañu gën a waggar ci seen i mesures ne 48 heures kat gannaaw boo fi ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye génnee waxi yi ci réew mi mu di jeunes yi dafa mel ne dégguñu wax ji ne démb dëkk bi dañoo feesoon della ko mbooloo ñu bari ci jeunes yi ñoo ngi woon ca place doon enjoy ak doon féexal seen xol ñi amee xol bu naqari ci misir yu yees yi bi teg ngir xeex coronavirus bi enquête dina kay nee nañu ñoo di artistes yi ci réew mi ndax baar yeeg boîte yeeg salle yi ñu tëj Daniel Gomes di njiital AMS mbootaay gi jaboote artistes musiciens ci réew mi association des musiciens du Sénégal di wax waa enquête dina kay ne musiciens yi ci réew mi waa roqol bu jeex la ñu boole ndax mesures yu yees yi état bi teg ne artistes yi la ci single vox populi nañu du baar yeeg boîte rek la ñu tëj salle sport yi ci Ndakaaru it état bi jël na dogalub tëj leen ngir ñetti weer weer wi ñu nekk di weeru août fête ga ci am di Assomption maanaam feetu 15 août vox populi mi ñu ngi xamal ne jàngu bi ci réew mi ñoo ngi sàkku ci mbokki chrétien yi ñu moytu ci rassemblement lu ñu mën ndax nee nañu dund doomu aadama dara ëpp ko solo kon kenn waru koo caaxaane bu caaxaan jeexi dëgg des l'observateur nee nañu li tax ba jàngoro coronavirus gi yegsi fii Macky Sall génnu ca nee na mu ci doxalee boobee ba léegi dimbaliwul askan wi ngir ñu jël coronavirus bi au sérieux li ñu ciy wax ak la mu cay def moom Macky ba far yegg ci teggi état d'urgence bi couvre-feu bi ñu tegoon ci bi far ñu dundee l'observateur gis ne moom Macky Sall communication bu bon bu mu def ci coronavirus bi moo ko sànk màggal Tuuba ren gi ak gàmmug ren gi dañu leen a war a annuler bu ñu bëggee wàññi coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi waxuma ko Mary Teuw Niane moo ko wax wax jàngi ci xët mu njëkku la Tribune Tribune nañu moom Mary Teuw Niane ministre enseignement supérieur ba woon doon léegi PCA bu Petrosen dañu ko invité woon démb ci rajo Futur Média nee na Mary Teuw nay wax lu yoonam nekk xalifa général des mourides kenn du ko wax lu muy def ak nu ma koy defee am na mat gu toll ne lu ci nekk xam na ca la ko war sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Gaynde ma teg ci ne ñii di wër di wax keroog ba xalifa général des mourides sëriñ Mountakha Mbacke Bassirou yëkkatee ñaari téeméeri million jox kilifa yi réew mi ngir jàppale leen ko ci xeex coronavirus bi ñoom fu ñu nekkoon